dañuy tàmbali liggéey bi incha allahu tàmbali bi nag mooy xale yi nga xam ne toll nañ ci fukki xale te mokkal téere bi nga xam ne lii firndeel ne mokkal nañ ko mooy biñ leen dégloo ci daara ji sëñ daara yi leen di jàngal déglu leen ba gis ne mokkal nañ sëriñ Balla daf leen a jël yóbbuwaat leen ci yeneen sëriñ daara ñu déglu leen ñooña nag bañ leen dégloo ñooña ñoo saxal ne mokkal nañ téere bi Euh, su ko defee nag fii ci jataay bii liñ fiy def rek mooy dañ fiy gaaral tuuti rek ci li nga xam ne moom moo lañ doon jàng ci téere bi su ko defee ñooñu kenn ku ci ne dinañ ko woo fii buñ ko wooyee sëriñ sii danañ ko tànnal benn barab ci téere bi mu jàng ñu barkeeloo ko loolu nag jubluwuñ ci saytu mokkal gi fii waaye gaaral la ndax mokkal gi saytu woon nañ ko ba noppi incha allah. sëriñ Abdoul Ahad Mbacké euh, ibnu sëriñ Sam su ko defee moom mu ubbi jotaay bi ci ay ayat quraan bu ko defee sëriñ Abdoul Ahad bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية قبل أن يأتي من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ۖ وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا فكيف تاخذونه وقد أفدى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن inna allaha kaana gafuuran rahiima jërëjëf sëriñ Fallou xam naa euh, mën ngaa présenté wu rek wax say waajur ki la doon jàngal xanaa ki ko téye moom moo di mën na ko mën na ko jotliwaat rek incha allah bisimilah. Baye Sëñ Mbacke. Baye Sëñ Mbacke mooy sa waajur bu góor. moo jàngal. moo la jàngal ah Sëñ Balla Gueye. waaw Balla Gueye moo la jàngal. Baye Serigne Mbacke. ah Baye Serigne Mbacke Baye Serigne Mbacke moo ko jàngal alxuraan. Eh, kuy sa waajuru góor. Modou Dia. Serigne Modou Dia. sa waajuru jigéen. soxna maam Diarra. ah soxna maam Diarra. waaw eh, kan moo la teyal bi. Serigne Asmor Dia. Serigne Asmor Dia leer na naa ni war naa ni kon eh, mokkal alxuraan yal na yàlla barkeel jërëjëf. Cheikh Cissé moo Sey Diop mooy sama waajur jigéen. aywa kon si xaalis ñu ngi ko doomu sëñ Cheikh Cissé la ak soxna Sey Diop. kon ñu bàyyi laa moom. jërëjëf si Mara euh, kon Serigne Fallou Cissé nga jàngal ñu baax aouzu billahi min acheytan rajim bismillahi rahmani rahim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 الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكذبون وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤمنين مخرجين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ألم نمكن لكم ؟ وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرننا قرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منه فحاق بالذين ذقروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون Serigne Saliou Tine soxna Serigne bu Thiam Serigne Mbacke Cheikh Djil Fall أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاء ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه ولنبينه لقوم يعلمون لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو صاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم وما Hamid Touré moo ko déglu kamil bi kon euh, boo jéemoon ñu bàyyi la sëñ sëñ Mahmoud bisimilah sëriñ Mbacke. sëñ Bass Lakaram mooy sama baay soxna Ami Bousso mooy sama yaay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من صعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون wa ilaahukum ilaahun waaxid laa ilaaha illaa huwa arrahmaanu arrahiim inna fi xalqi samaawaati wal ardi wa ixtilaafi allayli wan nahaar واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر والصحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم sëriñ Amdi Gueye mooy sama baay ak kan mbeen mbeen kebe mooy sama yaay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 ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم قصاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يقادرون الله والذين آمنوا وما يقادرون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم أو مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا قالوا إنما نحن مصلحون ألا لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا معتدين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون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 الكاذبين يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوم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 من النور إلى الظلمات فاعتدلوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتم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 أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما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 لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنهي رؤوسهم وأنذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ما سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاه الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا عتوا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين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 sadaqallaahu al-aliim bala maa wax asalaamaaleykum damay njëkk a wax maa ngi jéggulu tey tuub toog gi ma toog ci kaw lànk naa ba sonn ngeen teg ma ci image bi li may jural rek mooy aw saaga ci ñi may seetaan gala si la mu goog mi xoolal fa mu toog bala ñoo xam ne ndigale ma ci teg kon maa ngi koy tuub bu baax a baax a baax a baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi yëkkati ay kàddu yu nuyoo yu bàyyi ko ci sëriñ Cheikh Anta Mbacké mi xalifab sëriñ Modou Rokhaya di jëwriñu sëriñ Abo Mohamed nee na ginnaaw bu mu yëkkatee ay kàddu balay wax kàddu yu boppam day njëkk a yëkkati kàddu yu sëriñ Abo di sant bu baax cay doglu ngant ndax bi fi sëriñ Abdul Xaadir di imam di sëriñ Cheikh du teewee nee na moo ko wax na ko fépp fu ma war a dem te deewuma fa boo fa teewee doy na ma sëkk nga nekk fa jëmmi sëriñ ba di fa sunu jëmm rawatina nag bi ñu fi fekkee sëriñ As mu sëriñ Amidoun mi nga xam ne liggéey bii moo rakkam di sëriñ Mbàkke lépp ñoo ci taxawu sëñ Balla ba mel nii wut kër gu am solo joxe ko ngir yàlla ñu defa jàngal gone yi kon nee na mi ngi nuyoo ci turu sëriñ Abo Mouhamed di leen jottali cantuk sëriñ Abo di ak mbëgteem di wax ne sëriñ Abo dafa wax ne moom bokk na ci li mu sant yàlla jataay bii ko yàlla te te mu wuutu fi ay magam sun borom tàggatal ko ak njaboot goo xam ne waxut ak bëggam waaye ñoom ñëpp ñu ngi maase di tunglu ci lépp loo xam ne bëgg na ko ñu defal ko ko bokk na ci li ko gën a ñor gën koo yitteel mooy bis bi ñu dëgmal muy màggalu Daaru Salaam nga xam ne day mel ne bu amutoon ab baas duutu taxaw ci Afrique sàkkantuma ak Sénégal alxuraan it ndam lu mel ne lii mu am bu bis bii di ñëw amutoon alxuraan du mën a am ndam lu toll noonu te mooy sëriñ tubaab mi nga xam ne bi jamono xate bàyyee na ab bakkanam yàlla fas yéene taxawu lislaam yàlla téyel ko bakkanam téyel ko bakkanub lislaam ba tey jii lislaam am jàmm ba ñuy def daare alxuraan ay gone di ci tari alxuraan ji bari loolu sëriñ Cheikh nee na sëriñ Abo nee na mi ngi ciy sant sëñ Mame Balla Gueye bu baax tey sant kilifaam yi nga xam ne ñoo ko ci taxaw di sëriñ As ak sëñ Mbàkke di sant mbooleem donga yi fi nekk sëriñ Cheikh nag nee na ci kàddu boppam mooy mi ngi seereel ñépp ak cantam ci sëñ Mame Balla akob taxawaayam ndax nee na ay waajuram démb yàlla da leen a boole woon ak moom sëñ Mame Balla it bi mu ñëwee ci dëkk bi mu xam loolu jàpp ko te di ko sàmm suñ borom def ko muy ndaw lu jub ab liggéeyam bépp mu jëme ko ci alxuraan te bokk na ci waxi sëriñ Tuubaa xaadim rasuul mu wax ne ñi jàng alxuraan ba mokkal ko wëlbati di ko jàngale ñooñu bu yàllay wax sama ñooñ ci àdduna ñooña bokk nañ ci te mamba la bokk na ci ñooña ñi nga xam ne dañoo jàng alquran ba noppi wala ba di ko waat di ko jàngale nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soññe ne ci digg ci ay ngëneel sun borom subhanahu wa taala àdduna ci digg ci ay ngëneel Serigne tubaa soññe na ci digg ci ay ngëneel kon nag ngëneel yooyu ci yàlla digge yonent bi diggee ko ci Serigne tubaa diggee ko ci yëpp yàlla na dal ci sëñ mamba la ak mbooleem kuy jàngale alquran nee na mi ngi sant ñi nga xam ne ñoo fab seeni doom joxe ko ci daara ji ngir yàlla muy ay gone yoo xam ne ay gone yu jigéen yu toll ci fukki at gone yu jigéen yu toll ci juróom mokkale fi alxuraan ba tey jii mën ngaa génne gone yu fi mokkale alxuraan ba tey jii ñu ngi ci seen néegub sëy di sëy te nekk ay mokk gone yu mokkal alxuraan te xam seen diine te loolu liggéeyub sëñ Mame Balla la kon sëñ Cheikh nee na mi ngi sant jur yi bu baax di cant nag soxna maam Anta ci taxawaayam bi mu am ci lislaam am ko ci daara ba tey jii bis bu toll nii ñu mën koo fab dara jaale ko ngir ab liggéeyam ci daara alxuraan kon nee na mi ngi koy sant di sant soxna Maam Ja bu baax ci liggéey bi muy liggéey ci daara alxuraan tudd ndeyi daara ba tey jii ñu mën a fab bis bu toll nii dara jaale ko sëriñ bi nee na mi ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla fay te fay ko ci alxuraan fay ko ci lislaam sëriñ Cheikh Abdou di ñu fàttaliwaat ci kàddu sëriñ bi ba tey ne ñi ngi sant njabootu sëriñ Jiili mi nga xam ne waxtu wi daaw moo fi toog di Cheikh Mouhamadul Mamoun Mbacke doonoon boroom xol bu set doonoon koo xamante ni bii ko woyafal boppam la doonoon it jàmbaar. tey jii sëñ Mame Balla di ko fàttaliku bis bii mu dara jaare ko ak njabootam kon noo ngi ñaan lu ñu fi jàng ci alxuraan yal na ko yàlla def ca ruuxu sëriñ Jili ga suñ borom dëkkale ko ak sëriñ Moodu Maamun njaboot gi mu fi bàyyi yàlla yàggal leen ci jamono te dolli seeni xéewal ba lépp luy seen yéene ñu mën koo matale ba tey noonu lañu sëriñ Cheikh di yëkkatee ay kàddu mu jaare ci làmmiñu sëriñ Cheikh Abdou di sant njabootuk sëriñ Mor Faati gi ndax ñoom it bis bi bokk na ci li ñuy fàttalikoo sëriñ moor Gaawaan te ku ne xam ne ne moom it moo fi toogoon waxtu wi daaw di maam Cheikh Anta wuutu ko doon as gor di ab jullit di ko jàppug njàmburam kenn mësu koo dégg ci dara kon nee na bu ñu demee ba di ko fàttaliku ci bis bi nee ne mi ngi yóbbante ak cant ci sëriñ Ahmadou di ko ñaanal yàlla wóotaat gi nga xam ne moom la wuutu way juram wa yàlla na ko yàlla yàggal ci jataay ba te dimbale ko dimbale mbooleem ay rakkam yépp sëriñ bi nag di wax ne soññe bi ñaari kàddu rekk lay doon ginnaaw bu ma yëkkatee kàddu yi sëriñ ba noppi mu jëm ci daara ji lu ci ëpp daaray góor la waaye lu ci ëpp ay jigéen la te jigéen ñi seen royukaay dañuy wax ne mooy soxna jaaratullahi Mariama Buso waaye man damay wax ne fii sunu royukaay soxna jaara am na ko ko doon roy waaye fii seen royukaay mooy soxna Anta Njaay Mbàkke ndax kat yaakaar naa ne bu ñu xoolee njabootu soxna Anta Ndiaye danañ xam ne mat na sëkk royukaay ndax yàlla dogal na moom li Serigne Moussa Ka wax na ko yow gàlliwuloo ci maaram waaye kenn nattabliwut na soxna Anta Ndiaye gàlliwut ci ma maaram ndax li gën a doy waar mooy moo njëkk ci kër sëñ Mbacke Mor Anta Sali te baas bii ñi ko wër sant Mbacke mu leen ciy invité ñi ko war sant Bousso boo doon wër lislaam ji baa ngay wër yoonu murit kër goo ci dugg danga nga fa fekk ña gën a tekki ci kër ga da leen lëkkale ak soxna Anta Ndiaye dana doon ci ñoom dara ndax Ibrahima Awañang moo ko waral ba loolu waraloon na Serigne Touba daana def kër gum pa nga taxawal wala seex bu mu seexal ci ak njabootu boppam wala ay bokkam dana le boo bëggee sa kër taxaw te barkeel fexeel ba laal dara ci Ibrahima Awañang kon yaakaar naa ne loolu ab liggéey bu rëy la maam Ndiaye nag da cee taxaw taxawaay bu ràññiku boo xam ne. doy na sëkk ab royukaay ci jigéen ñi taxawaay ba weesuwut li sëriñ Cheikh Saliou di ab sëtam bokk ci li waxoon nee na soxna Anta Ndiaye xolam bu yaatu moo ko may lii mu am xol bu yaatu ana lan mooy ab xolam bu yaatu mooy jëkk ci kër ba fa dara nekk guut nga nekk fa fàkk kër ga ba mu yaatu kër ga xat nga mën a sempi sëb néeg sampaat ko feneen yaatal kër ga ba ku nekk la cay sa muur nga mën koo jariñoo loolu nee na borom xol bu yaatu rek moo ko man te soxna Anta Ndiaye def na ko kon loolu jigéen ñi war nañ cee jànge ci moom wane ne tuyaaba bu nekkee ci kër te bari njaboot ga war nañ caa mën a jariñu te xatalante du ci am ndax Soxna Anta Njaay bu xataloon li ne ci ay ngëneel ci wanagum sëñ Mbàkke Mor Anta Sali wóor na ko ne loolu lépp xajut ci ay boolam mu ne na ku am bool bu set naa la woo nga ñëw tibb ci mbana gi na xaj nga ci loolu moo ko may tey jii lii mu am kon nag royukaay bu fekkee ne bëgg ngeen ko Soxna Anta Njaay doy na sëkk ab royukaay te yaakaar naa ne lii mu am ci sëñ Mbacke Mor Anta Sali mu di Serigne Afia ak maam Cheikh ak sëñ Mbacke Anta ak soxna Faati Anta ak soxna Anta Sali ak ñañu bokkal kenn ku ci nekk boo demee ci fa mu nekk da xam ne ka yéesul kenn ci lislaam waaye yéesul kenn ci yoonu murit bu dee ngërëmu liggéeyal yàlla ci lislaam kum ci man di doon liggéeyal nga yàlla ba ñeewoo génn góor yàlla ci sa kanam bu dee ci biir tarixatul muridiya topp nga Serigne Touba ba ñeewoo kenn ci ak taalibe lislaam jariñ leen sëñ tubaa jariñ leen looloo moo tax sëñ Moussa Ka ca woyam wa mu naan ma soxna Anta Njaay wàcc nga am ngab yaaram am ilimaan gàlliwuloo ci maaram kon yaakaar naa ne loolu jigéen ju farlu te nangoo liggéey moo ko mën a liggéey ci wanagu toll ne wanagu sëñ Mbàkke Mor Anta Sali ba jur fa ku mel ne sëñ Afe mii jur fa ku mel ne maam Cheikh Anta waaye am fa ku mel ne soxna Anta Njaay kon jigéen ñi am nañu royukaay bu baax a baax rawatina ñi nga xam ne ñoom lañ ko tuddee muy soxna Anta Njaay kon ñi ngi sant bu baax a baax ci taxawaay boobu di sant nag mbooleem tuut tànk yi di ñaan képp ku fi jànge alxuraan ba mokkale ko fi wala nga jànge fi wenn araf rek soo génnee yal na la suñ borom boole ci ponk yi taxawal lislaam nga xam ne bu ëllëgee lislaam dana leen demoo waaye yal na la boole ci nag borom kattan yi nga xam ne ñooy taxawal yoonu murit di ko jàllale fépp foo xam ne war na fa àgg ndax war loolu war naa yomb ci àdduna ak pajog aajo ci àllaaxira pajog aajo nag li ci gën a yéeme damay wax ne ngërëmul yàlla ak pexe bokkuñu ngërëmul yàlla ca yàlla lay bàyyi ko ay pexe doomu aadama koy lijjanti ngërëmul yàlla nag bu xasee nekk ci yow pexe doomu aadama duutu mën a ne bu duutu mën a jëm si ci yow mooy li nga fiy nekk dangay ngay ci adduna boo demee ñi ngi fi bàyyi dañuy tedd suñ borom di la teral ci àllaaxira loolu nag kon sëriñ bi nee na mi ngi ñaanal koronu baas bi wala nga def sax dara saw ñàq ci liggéey bi yàlla la yàlla defal pajog aajo ci darajey Cheikh Sidil Muxtaar barkeb Cheikh Mahamadul Mamoun darajey Xaadimu Rasul daraje yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jagleeg suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne lépp moo ko bind ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah kon ñi ngi wax ci turu yaari kër yooyu wax ne ñi ngi sant bu baax seenu cant nag dañ koy tàmbalee ci seen jur wi fi nekk di sëriñ Abo Mohamed di ñaan suñu boroom gën ko fay yàggal lool gën a doole ak wéram xam naa bokk yu bari ñi ngi may laaj naan ma sëriñ Abo Mouhamed dañ koy dégg loolu nag mën na koo jural loo xam ne laaj na ak leeral sëriñ Mouhamadul Maamun way juram ba muy dem gànnaar Mouhamadu Seex lañ ko daan wooye booba waxaguñ Mouhamadul Maamun mu Seex lañ ko daan wooye ndax booba sëriñ ma Massamba Diop ma nga fa sëriñ Modou aw Balla ma nga fa ak ay Modou yeneen ñu leen di kenn ku ne ñu am kuñ lay dàkkantale sëriñ Modou ñu koy dàkkantele ci sëriñ Masamba Diop waajuram sëriñ Modou Awa Balla ñu dàkkantele ko foofa sëriñ Modou Mamoun ñu dàkkale ko ci maam Cheikh waaye lu jëflante ak sëriñ Touba jëflante joo xam ne mooy sëriñ Ahmad Tasrif Sougou moom sëriñ Jéeri Waadaan nee na moog bàyyi sëriñ Sarr suñ borom dalee na boole woon ak sëñ Modou Mamoun ñu di ay wëllëre bàyyi sëriñ Sarr ak sëñ Modou Mamoun. sëñ mu sëñ tubaa daana leen nurale ba àgg ci bu leen di bësloo day wax ne ñoom de dañoo nuroo ba nuroo aw basin da leen di dañoo nuroo ba nuroo aw basin nee na nag ab xayma boo xam ne sëñ tubaa da ko tegoon ci loxoy sëñ Muudu Maamun xayma boobu nee na ay saako lañ fa def waaye nee na ndakate saako ya sanqal moo ci ne wala baraay wala seeni kooba mooy li mag ñi daan defar di ko indi gànnaar di ko jox sëñ Touba te sëñ saako yooyu naari gànnaar yi rek la ko daan jox ndaw lu ñëw joxe junj bi sëñ tubaa joxe ci sëñ Modou Mamoun mu ubbil la xayma bi nga dem jël waaye sëñ Modou Mamoun du dugg boo jëlee ba noppi sëñ Modou Mamoun tëjaat xayma ba toogaat ca bunt ba ba ca saaku bu mujj ba ndaw li ñëw ne ko sëriñ bee mu yónni mu dem jël ko ba mu génnee sëriñ bi ñëwal boppam woolu ko mu ñëw mu ne ko Mouhamadou mu ne ko Mbacke mu ne ko ndax dara des na fa mu ne ko dara dafa nekkoon mu ne ko kon sa bët tegewu ci mu ne ko xaw ma lu fa xaw ma lu fa jóg. ba ma ne téyel ma bunt bi ndaw lu ma fi yabal danaa ko wax nangam ndaw lu ñëw danaa ubbi bunt ba mu dugg waaye du ma dugg Serigne Touba nag xool maandu te googee tax mu jël aw kayit daal di cay bind Mouhamadul Mamoun nañ koy woowee Mouhamadul Mamoun kon loolee indi woon tur woowu sëriñ Aboo nee na Serigne Moodu Mamoun moo ko tudde Serigne Mbacke Bousso Serigne Mbacke Bousso nag turandoo yi am na ñu ñuy wax Serigne Mbacke am ñu ñuy wax sëriñ Aboo waaye xanaa sañ naa jël nag Serigne Mbacke jañ ko tudde ngir xàjjale ko ak sëriñ Mbacke yi ci des ne moom aboo la di sëñ Mbacke moom sëriñ Mouhamadul Mamoun moo tax muy tudd aboo Mouhamadul Mamoun nee na loolu ci andim aboo Mouhamed suñ ne aboo Baraka faaw laajte amaat ndax da nga ne sëñ aboom sëñ Fallou kuñ ko tuddee ñu ne sëñ Mbacke bu sa ci aboo Baraka la te aboo Baraka boobu kat mooy bàyyi soxna gàdd mii aboo Baraka Baraka booba ñi tudd ñi nga xam ne dañ leen a tudd sëñ Mbacke bu soo ginnaaw juddug sëñ soxna gàdd la ñuy tuddee aboo Baraka sëñ mu sëñ aboo nag neexoon na kon ak dàkkantelam na ko delloo waat ci baayam loo tax ñu indi abo muhammadul mamun loolu ak leeral la kon njabootug sëñ jiili ak njabootug sëñ Mor Fati nee nañ ñi ngi sant seen wayjur woowu di sëriñ abo muhammad di ko ñaanal yàlla mu yàggal ko fi lool doole ak wéram di sant bu baax nag sëñ Mamballa Gueye nee na ci xalaat bii nga am ànd ko am waa daara ji ci fàttaliku sëriñ jiili fàttaliku sëriñ Mor Fati ci ndigal li la daan jox ngay taxawe lii tey jii ñu nekk ci seen wetu baay seen rakk di leen jox ndigal bi nga di ko defaat ba sam xel dem ci ñoom nga leen di fàttaliku nee na loolu day dundalaat nit ki la ndax ku nekk barzaq nga di ko fàttalikuwaat ci àdduna yow yaa ngi bokk ci ñi nga xam ne yaa ngi koy dundalaat loolu nag njabootu sëriñ Jili nee na teg nañ seen bët ci loolu di la ñaanal yàlla lii nga def yàlla la ci suñu borom jox ndam lu rëy ba bu ëllëgee bu maam Cheikh teewee sëriñ Touba teew sëñ Moudou Mamoun teew. ñu wax ne ana ñun ñu doon liggéeyal daaru salaam ci alxuraan booba yàlla nga bokk ci ñi nga xam ne sëñ gaawam dala fay damoo yaa ngi mbooleem ko mas a jaar ci daara ji mu ne jàngal nañ leen ñoom ñaari juróom-benn fukki kaamil ak juróom-benn kon loolu yaakaar naa ne bu benn bi nangoo doy nañ ñëpp sàkkantumaak bu juróom-benn fukki yëpp dangoo nag tey am turu yàlla wu mag woo xamante ne bii loolu la cay signifié yaakaar naa ne kon kàddu yooyu rek dama sëñ Cheikh Abdou waxoon waaw sëriñ commission culturelle bu sëriñ Gédé ndax xam ngeen ne màggal gi ren bi sëriñ Abo Mohamed joxe ndigal sëriñ Cheikh ne ko màggal gi diirub ñu koy def yaa ko mas di taxawu te way jur yi fi jaar yépp di samay kilifa yaa nekkoon seen jëwriñ di leen taxawu kon man sama yoon nekku ci lépp a ngi noonu àndal ak say rakk taxawul ma ko sëriñ Cheikh Anta it dajalee buntu kër yi sëriñ Modou Mamoun yi waxtaan ak ñoom ba noppi nag ne leen am naa rakk joo xam ne mooy dox sama diggante yéen muy sëriñ Cheikh Abdou mii na ngeen àndandoo fexe ba màggal gi buntu kër sëñ Modou Mamoun bu ne wala buntu kër taalibe bu ne na am wala buntu kër sëñ gaawaan bu ne na am yëg-yëg ne bokk na ci màggal gi ndax doon nañ ci dara waaye nañ leen ci doonale bi ñu dajee nag mu ne leen nañ def ab commission comité d'organisation comité boobu bi ñu ko nasee ba noppi yëtaat ko Serigne Cheikh ba mu walide ko moom la Serigne ab du ñëw teg ko ci taabal ji ne na ci ñëpp bokk te ngeen tànn ñoom nag ñoo maase tànn Serigne Sam moom Serigne Guédé mu jiite commission culturelle bi moo tax mu jóg ànd ak ñi mu war a àndal ñépp ñëw teew fii ci gis ngeen thème yu yi nga xam ne tànn nañ ko ci màggal gi ren ak waxtaan yu am solo yin ciy def kon ñoom itam ñi ngi leen di sant ci turu sëriñ bi di leen ñaanal yàlla yàlla nañu am ndam ci bis bi ci barkeb Cheikhul Khadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu soxna Mbacke Abdou Ga sëriñ Abdoulaye moom suñu teew na Serigne Bassirou Sakho nga xam ne mooy suñu Serigne daal di kaa teew na Serigne Bass Lakaram daal di doom doon teew tari léegi teew na Serigne Abdou Khadir moom Serigne Hamdi ku ne xam koo daal diggante bi daara ji ak suñu demul ji daal teew na tey Modou Gueye mi nga xam ni eh, gox bi moo fi kilifa gi bu fekkee Baye Fallou Seye teew na. waaye ñiñ tuddee bi si muy sëñ Mor Gaawaan doomam sëñ Mbàkke teewale bi sëñ Moustapha Mbàkke si Ahmad eh, dar ko fii daal di ko fi yabal ñu ko ciy ñaanal moom sëñ Mor Gaawaan moo sëñ Jili Xalifa sëriñ Ali teewalaam sëñ ñi àndal ba dalika wax na ne sëñ Cheikh Abdou di mooy wax gi turu sëriñ Jili kon day mel ni sëriñ Asmor Dia kooku moom mooy eh, teew la sëriñ Jili Abdou Xaadir Jumaada suñu doom bàjjan dalika ñoo koy siyaare baax teel naa teew lool Serigne Cheikh Anta Mbacke moom sëñ Mudu Roqaya dalika di kilifa ci jataay bi moo ngi nii dugg si ànd ak Serigne Fallou bi nga xam ne war a waxtaan léegi incha allahu kon day mel nii wax dëgg yàlla jataay bi dama ni tey moom faw may lim délégation bi sëñ Mara ji ñii nii kon Serigne Cheikh ñoo ngi koy dalal baax a baax. soxna maam Anta Dia nag euh, mooy ñi nga xam ne moom lañ tuddee bis bi di ci ñaanal sëñ Gileeg sëñ Moor soxna maam Anta teew na euh, sëñ Alaaji Ndumbe Buso moo ko fàtte moom kazalikaat ku ne xam na diggante mag daara ji dafay ñëw tout le temps di ñu jàppale kazalikaat ñu koy baax soxna maam Anta mi nga xam ne mooy euh, ki ñu tuddee bis bi waaye bis bi da ko joxaat sëñ Maara nday daara yi Daaru Salaam yi ngi Tuubaa yi comme li nga doon wax léegi xanaa naa sax dinaa jox sëñ xaali jaxate mu am ñeenti minutes yu addu ci li nga doon wax léegi nii ndax sëñ El Hadj Ndiaye Cheikh Ndindi day mel ni euh, moom la jox kàddoom wala boog euh, moom la wax moo koy wóotu soxna Ndeye Sylla mu ànd ak moom ak soxna Ndiakhate Sylla ak soxna Ndeye Diop soxna Rama Sylla May Guèye ñoom ñi nga xam ne ñooy membre membre yi nga xam ne ñooy fondateur u nday daay Daaru Salaam yi ànd ak mbootaay yi Daaru Salaam yëpp teew teraanga yu am solo lañ fi indi ñoom mbootaay yi waaye sëñ Mara soxna maam Anta Galikaat teraanga yi ñu gis muy kaamil yi ak am lim bu am solo moo ko jox daara ji Galikaat ñu ngi koy ñaan yàlla àggale yéenam bu baax ku xam na ni yàgg naa jàppale daara yi loolu yàgg yu baax a baax te ñëpp xam nañ ko depuis daara yi jabale di siyaare teew yëpp suñu daam ñu ngi moo leen jiite sëriñ Cheikh teew na teew na sëñ El Hadj Mbacke démb rek ñu ngi naa ñu ñoo ngi leen di ñaanal mu jàll ni mu war a jàlle day mel ñaan boobu àgg na kon day mel ni euh, Cheikh Jili bindoon délégation waaye dama yoon ñii moom parce que sëñ na et ak yim si la ñoom kadalikaat waaye waa Touba sa kanam nag commission culturelle xam ne man ci laa bokk sëñ teew na ànd ak sëñ kadalikaat Serigne Abdou Khadir Bousso wala sëñ Khadir Diop imaamu buy bind sëñ Abdou Khadir Dia ñoom ñëpp bàyyeekoo nañ euh, si Abu Baraka nag moom incha allahu taala dongee ñoo sakku woon en tant que euh, si Abu Baraka euh, mu am donte ñaari laaye la ñu jàng ko fi kon dañoo bëggoon balaa moo dem rek Baraka bokk ci membre commission scientifique bu Touba Ça Kanam teewoon na ko moo ngi noonu ci kanamu sëñ mburum sëñ jiili kon waa Touba Ça Kanam sëñ Adama Ndiaye ñu ngi sant yéen ñëpp dinañ leen gërëm si maam Balla Mbackeem sëñ Mudu Roqee ko daal teew na ak mbooleem ahlu Quraan sëñ sëñ Sidi Bousso tur naa ko léegi kon day mel ne waa daara ji kàddu yooyu dama ne sax ji li moom bàyyi leen ma ma jël ko saa bopp eh, jëm koo leeral No macha allah rawatina soxna si ñu ko dara jaale xam naa dama leen waxoon ni ku maam anta doon sab lantinoor boo yeboo nelaw ndeseg diw du tag maam anta maam jaara rek la roy di ndey daara doon jàmbaar ci biir daara doon jigéen ju man góor te lii sëñ daara yee wax ko maa ko way gisal daaw ba nuy tiit mbas mi maam anta jóg taxaw jëlib lim bu rëy jox daara maam anta doo ko nay newoo fii di rëy rëy ko xeebaate ngir alal danga wàcc suufee suufe yow waar wu rëy nga bay li ndey daara yi teew tey ci suñ bis bi neex na lool ci suñ xol yi alxuraan jitam bég na lii ko rëy xam naa loolu ab xetaa la woon rek bu ñuy tënk ñu ci jég lu baax di eh, dalal mbooleem gan ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko ci ay barab yu fasantikoo ñëw teg teew ci bis bi ngir jëmmi alxuraan rek kon ni ko gone yi waxe léegi ci biir way yi macha ñu leen ci sant bu baax a baax ci turu mboolem waa daara ji yépp rawatina euh, ci turu euh, ñi nekk ci biir daara ji ak ñi nga xam ni jaar nañ ci daara ji ba génn kon ñoom ñépp ñoo ngi maase di béral kàddu cant ak ngërëm jëmale ko ci mbooleem ku teew ci bis bi ak foo man di bàyyi ko commencé ko ci kilifa yi ba jaar ci sëriñu daara yi ak mboolem way jur yëpp ak euh, mboolem euh, ñëpp rek góor jigéen mag ndaw comme ni ko baax a waxe di leen sant bu baax a baax di leen gërëm di ñaan suñu borom defal leen mboolem tànk yi nga xam ni jéggi ngeen ko ñëw ak yi ngeen di jéggiwaat di dellu yëpp sunu borom def ko kat tànk yiw def ko ay xéwal te sotti ko ci mboolem. jullit ñëpp ak fu ñu mën di nekk kon ñoo ngi sant bu baax a baax di gërëm euh, comme niñ ko baaxoo jàllale rek kàddu goo xam ni mooy kàddu daara ji di kàddu daayira bi ngir bu ngeen gisee bis bi ak nii mu mel macha allah ngeen xam ni euh, dara defu ko lu dul ndimbalu suñ boroom waaye mboole mbokk yi nga xam ni bokk nañ nekk ci daara ji ñenn ñi nekk ci daara ji ba suñu borom def ñu bàyyi ko fi dem ci yeneen barab di continuer seenum njàng wala ñuy continuer di liggéey nekk ci ay yeneen yitte ak ñi nga xam ni ñoo nekk ci biir daara ji ba tey ñu def benn kuréel boo xam ni dañ koo taxawal ngir at mu jot ñu xool mboolem gone yi nga xam ni ñoo jot a mokkal alquran ci at mi ñu defal leen benn bis muy sunu jàmbaar yi toog macha allah di leen ñaanal suñu boroom mu jig leen te barkeel defal leen benn bis boo xam ni bisu teraanga lay doon ngir terale leen ko ci téereb suñu borom bi ñu wattu ndax ak njàmbaar taxu ko wattu ak góor góorgóorlu taxu ko wattu waaye ndimbal suñu borom la ndax am na ñu ci góorgóorlu ba sonn suñu boroom defut ñu mën ko wattu ñu amal leen bis boo xam ne dañ leen ci sargal di leen ci tatagal euh, at mu jot ñu baaxoo ko jaale kenn ci kilifa yi rawatina waa daara ren ji ñu dara jaale ko sunu ndayi daara di ndayi daara ju ju am ab taxawaay bu rëy ci biir daara yi rawatina daara yii muy soxna maam antaja di ko sant bu baax a baax di ko gërëm ci taxaw bi mu taxaw ci daara ji ak mboolem yeneen daara yi comme ni ma ko waxee rek siñ daara yëpp a ko wax wala yi ëpp ñoo ko wax te defe naa ko ko xam ku nekk mën nga koo dëggal kon euh, loolu moo waraloon ñu woote bis bi tey jii euh, di leen xamal niit ñun dañ dañuy ay ndaw yoo xam ni dañoo am euh, tawféexi suñu boroom nekk ci di ko liggéeyal ci téereem bi te ñu jàpp ni lenn lu nekk góor góorgóorlu ca baax na waaye rawatina di góor góorlu ci téereb suñu boroom subhaanahu wa taala rawatina ñi nga xam ne ñoo fi nekk ak ñi fi jaar ba génn di jëlaat seeni dërëm ak seeni ñaar di dajale di woote di di di def eh, ay daje yu am solo ngir mën a taxawal bis bi kon loolu ku nekk xam na ni du du du lu yomb waaye tawféexi suñu borom la kon waa daara ji ñoo ngi béral seeni kàddu yu cant ak seeni kàddu yu ngërëm jëmale ko ci mbooleem ñépp ñu fi teew ngir yàlla ak alquran di nu bokk eh, daayira bi nag eh, benn daayira boo xam ni day comme ni ma ko waxee léegi rek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 إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ليميز الله الخبيث من الطيب الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين والدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا واعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم